usine bii mi ngi nuy lor te loraange bi mu nuy lor ëpp mag ñi fi nekkoon ñëpp sëqat nañu ba dee xale yi ci ñëpp amatuñu benn njariñ ñun ñu ci des nag ñu ngi fi sunu délégué de dem na barki dem moo Njaay vendredi la fi jógee bi ci la kilifa yi fi nekkoon yëpp xet gi rey na leen ñëpp a dee kenn dundul ñu naan ay asma du asma liquide bi ñu doon dund ku fi doon jigéeni biir nga yore biir bu ndaw sa biir tuuru na. ndax boo demee hôpital ñu ne dangay ngay looy noyyi usine bi la ana mu dem na sa doom di sëqat gémme gi fur nga yóbbu hôpital ñu ne dafa am li muy noyyi liquide bi la lépp dund nañ ko fii. xeeñee day jàpp sa yaram ji sa bët yi sa butit yi da ngay xiif sur le sang. te doo mun lekk xet bu duggee da ngay wàcc sa lu nga jotoon lekk. ginnaaw kalaateeg ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki tonn ammonium ca Beyrouth lu ëpp téeméeri doomu aadama daal ci ñàkk seen bakkan yéenekaay bi di l'observateur siiwil ni denc nañ quantité bu am solo ca Môle bu Ndakaaru. ci loolee àllarba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août njiitu réew mi Macky Sall ci réunion conseil des ministres sant jëruñ bi ñu denk biir réew mi mu daal di xayma bépp site bu ñu denc produit yu baaxul yooyee loole waral bii digital TV di door ab jàngat ci site yooyee nga xamante ni baaxul ci kaaraange askan wi ak ay moomeelam ñu daal di koy door ak Senchim fii ci Thiaroye. ndax isin bii ñun ñi den nag moom ñoo gën a sonn sonn nañu suñu doom yi sonn nañu dënn soj bu amul àpp si bureau la ñu dëkk saa yi bu ne boo demee hôpital ñu bindal la ordonnance ordonnance seer lool te kenn teguñu ko isin bee ñu ko teg andil ñu jafe-jafe fii temps bi ñuy bi muy gën a taw dañ daan bënn fii ndox mi wal ndox mi wal ndox mi day jaune di fuur ndox mi fuur di wal du ndoxi taw ma ne leen ndox mi liquide bi la ñu ne déedéet bi ma demee ba engagé nag woo leen ca kaw fekk ñu di ko defar ma woo leen buñ ma wuyoo ma ne leen ndox mi fi mu jaar baaxul ñu ne leen ndoxi taw la ma ne leen du ndoxi taw bu ngeen ko dindiwul léegi léegi léegi mu ne ah ma ko ma woote ñu ne xaaral ñoo defar ko ci la ñu andi ciment ñëw fatt ko waaye ndox mi fii lañ ko daan jaarale muy génn te rafetul xet gi dañu bëgg rey suñu ginnaaw nekk yii palanteer mënatu faa ubbeeku ndax ba ñu tojee seen miir boobu xeer yëpp dañu jóge ci suñu ginnaaw ginnaaw palanteer yi mënuñu ko ubbi yooyu duñu bëgg rey am nañu jafe boobu bu tawee da nga naan benn tey produit bi génn fi ndax xet gi xet gi day xeeñ ba jégg dayoo waaw ñun ñi dend ak moom mu di ñu bëgg a rey te waaw géej boo leen laajoon ñu ne ñun jotuñu xet gi ñoom la ñuy dund ñoo ko xam kon xam nga ne xet gi jégg na dayo parce que waa géej toujours boo waxee ñu ne leen ñoom xet gi ñuy dund du ngeen ko dund te mu ngi ci sunu wet di ñu jéggi ña nga xam ne ñu ngi sore ak ñoom di bëgg a dee kon ñun ñu ronu fu ñu jëm. nii ne démb barki démb dafa commencé woon xeeñ bu mu tayee noonu dafa commencé xeeñ démb itam même chose. day xeeñ bu baax te bu bu xeeñee maire yi dañuy génn feebar même pas deux jours ñu yóbbu leen hôpital trois jours jeunesse bi terewuñu da ngay sëkkat sëkkat ba ngay wàccu deret man mi sa même bu xeeñee damay sëkkat ba wàccu deret maire yi billaahi wallaahi ngay rey ginaar sax bu génnee deret a cause de usine bi suñ parents yi tanewuñu bu balay dañuy sonn même pas trente cinq ñu yóbbu leen hôpital da ngay dëkk si sax même pas deux jours trois jours nga demaat parce que de usine bi xamoo ko miinoo non métti na trop usine bii rey na ñi feebar na ñi ñii wéruñu ñi ñu ngi wéru di ba tey man mii ci laa bokk usine bii ñu ngi nuy bëgg a rey usine bi wax dëgg suñu ko fa jële woon day moo nuy gënal mi ngi gaañ xale yi mi ngi paat mag ñi mi ngi sonal ñi si des sonal nañu lool lii moom dañu cee war a jàppale te yàlla rek a tax euh, usine bi nañu ko fi jëlee nañu ko fi jëlee la ma waxoon keroog rek moom laay waxaat tey man a mon du ma wax mu ko loo xam ne lii amul yàlla rek a tax may wax usine bii mi ngi nuy lor te loraange bi mu nuy lor ëpp na mag ñi fi nekkoon ñëpp sëqat nañu ba dee xale yi ci ñëpp amatuñu benn njariñ ñun ñu ci des nag ñu ngi fi sunu délégué de quartier imam Bàcc Gueye dem na barki dem ba Ndiaye vendredi la fi jógee problème usine bi ci la bokk nañu nu dimbali lillahi wa rasuli yi nu jëlee fi usine bi paa yi nekkoon côté gaañu ak côté usine bi billaa walaay talaa barki démb rek am na ko fi gaañu ak côté usine bi dëgg na yàlla mais yàlla ak jaam ak pexem yàlla ak dogalam mais usine bi tamit si la bokk lu ñu waroon dund bu ñu ci waroon dund 30 ans duñ ko dund ak côté usine bi parce que poumon yi antenne ñu ko ñun jeunesse rek day métti su ñun waaye léegi nag xanaa yéen demu leen foofa ba gis la fa ne su ngeen fa demee su ngeen jegee di ngeen gis la fa nekk xet gaa nga ba tey jógu ñuy wax ñoom du dëgg amul nañu ñëw dimbali ñu te yàlla tax ñu jëlee fi lii. bu ñu bëggee nax nag ne bàyyi leen seen doom yu góor yaa ngi fii ñu jël leen ñu liggéey doom yu góor yi ñuy bagga dee ñu ne kaay leen nag ñu doggale leen mooy bu gën a gaaw duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ku ñuy jàppale nag jàppale ñu sonn nañu damm nañu daay nañu lii daal ku ñu ci jàppale ñu jël ku ñu ci jàppale ñu jël taxawaat nañu nag kenn xamul lu ñuy liggéey foofu taxawaat nañu de ñu ngi defar waaye kenn xamul lu ñuy liggéey lépp a ngi ci kumpa nañ jàppale nag su ñu jàppalee moo gën ci ñoom bu ñu jàppalewul nag dinañu jóg te bu ñu jógee dinañ taxaw taxawaay bu mat sëkk ndax ko bëgg a dee wequ loolu la ñuy dund fii papa loolu la ñuy dund fii ci koñ bi ñu wax la ko moom la ñuy dund waxuñu ko moom la ñuy dund kilifa yi fi nekkoon yëpp xet gi rey na leen ñëpp a dee nañu kenn dundul ñu naan ay asma du asma liquide bi ñu doon dund ku fu doon jigéeni biir nga yore biir bu ndaw sa biir tuuru na ndax boo demee hôpital ñu ne da ngay nooyi looy nooyee usine bi la ana dem na sa doom di sëqat gémme ngi fur nga yóbbu hôpital ñu ne dafa am lu muy nooyee liquide bi la lépp dund nañ ko fii. léegi léegi ñoom amu fi certain. ok amu fi certain. waaw certain léegi boobu en tout cas lañ ko def quoi. bon hmm. léegi les responsables sont en bas. en cesse bas. Hmm, hmm, voilà il doit essayer de Il n'y a, pas, il y a, il y a pas responsable que je rejoins exactement. Vous n'avez pas un numéro d'un responsable. métier amul produit chimique. non amul produit léegi urée urée bi rek moo nekk fii quoi. urée urée mooy. mooy ah mooy engrais bi. engrais bi quoi. parce que man dama ñëw fii seen machine seen tout ça léegi am na seen seen am nañu seen bu nekk quoi. Hmm. def naa fële bu yóbbu quoi fële bu yóbbu léegi personnel bi nekkoon fii léegi ñoom ñëpp ñu yóbbu leen yóbbu leen mbaaw quoi léegi ñu fi nekk mooy euh, par exemple. ñi sol saare ñu aari ah, quoi ñu dirigé xam ñuy saare ay journal yeneen quoi. Hmm. ñu amee fii rek la leen di woo mais ay ay chargement tout ça seen seen gars yi ñu dirigé rek ñoo ko des quoi pont bascule. Hmm. ak responsable xam nga. ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko nekk quoi. Euh, Semsun moom nekk na loo xamante ne ni benn usine la bu ñu fi créé yàgg na man dama juddu fekk ko fi mu soral ñu nag depuis boobu teg ñu ay métit ak ay coono yoo xamante ni mënuñu koo comprendre parce que day xeeñ xam nga sonal sonal na nit ñi trop. Euh, bi ci des yàgg nañu topp pour usine bi jóge fi te stock rek moo fi nekkoon te stock boobu rek dafa sonaloon nit ñi daan nañ fi produire mais nee nañ ci li ñu wax arrêté nañ ko. mais ñun wóoruñu parce que ñëwaat nañ fi construire nañ construire def nañ ñu ngi defaat beneen construction boo xamante ne benn serpente la bu mag boo xamante ni def nañ ko ci biir usine bi am na beneen bi nga xamante ni réfectionné waat nañ ko ci côté bi te boobu mënuñu jël ñaari stock yëpp ne ñaari serpente yëpp ne dañ koy stocké wóorul wóoruñu même bu nekkee stock sax danger la parce que ku ne xam ne ne engrais bi ñuy liggéey nii bu boo ko tegee sax te boo ko tegee te tooyul deful dara day xeeñ waxuma laak nag tew charpente bi nekkul charpente boo xamante ni ay 3 tonnes lay jël ak ay 4 tonnes kii lu mu gàtt gàtt gàtt dina jël des centaines de tonnes kooku moom moom lu wér la loolu man xam naa ci dara te tey boo xoolee fii secteur bi ñu nekk nii tey environnement Thiaroye sur Mer bi amul kenn ku fi nooyu normal man mii di wax ak yow yàlla xam ne du ma la ko nëbb de mënatuma sax chaque jour dama ciy tooñ gaay man bu may dem géej sax su ma dawee tuuti tuuti damay am problème mu te pourtant tànk yi dafiy ne damay mën a daw su may liggéey du ma am problème mais su may daw tuuti rek day mel ni sama xol bi dañ koy génnee su may continuer man leer na ma ne su damay fooyee damay daan loolu man lu ma leer la te lu ñu bëri dal na leen fii dañ koy bañ a wax mag ñi ñu ngi nii feebar koñ bi benn mag a fi des muy sam pap mag ñëpp usine bi yóbbu na leen yàlla na fi yàgg yàlla na ko yàlla bàyyi suñ kanam kon usine bi du yoon muy nekk fii c'est la première fois sax ma toog nii wax si daan naa ñëw ànd ak gars yi mais mosuma cee wax dama daan yuuxu rek parce que am na ñu fi nekkoon ku ci mel ni paa bi wàññeeku bërki dem boo xoolee usine bi bokk na ci li ko gën sonal li tax mu wàññeeku parce que ku dem ba mënatoo lekk mais ñàkk lekk ci dem ba mënatoo lekk ñàkk lekk boobu am na lu ko waral parce que nit bu normalee rek dina lekk ak lu feebar feebar nag waaw ñuy lancé waat appel rek ñi nga xamante ni ñooy njiit yi muy ministre bi même ministre de l' industrie et des am na ci part de responsable euh, ministre de l' industrie et ak ministre de l' environnement yëpp ñoom ñaar dañoo war a taxaw ñoom ñaar ñëpp dañoo war a taxaw parce que ministre de l' industrie des mines xam na li kii problème bi mu bi mu bi mu mën a bi mu mën a andil askan bi ministre de environnement xam na li baax si askan bi ak li bon ci askan bi kon ñu ngi leen di ñaan ñoom euh, di leen di leen di leen lancer message ñu ñëw jàppale population Thiaroye sur Mer xam na usine bi mi ngi ñuy lor usine bi warul liggéey warul stocké tey boo demee tey ICS mbooroo ak Mbaaw yëpp am nañ fa espace boo xamante ni mën nañ mën nañ jël li yóbbu ko fa xam nga te bu dul dara gis nga usine bis bu ñu ko defoon stock mu commencé dox camion yi fii la ñuy duggaat sonal nit ñi te camion yooyu dañuy yab engrais bi des fois ñëw fanaan fii des fois ñu taxaw ci buntu kër nit gi di génn nga romb wala nga toog te guddi xam nga guddi boo xasee boo jot à partir de 22 heures lépp loo teg moo xamante ni produit chimique la wala garab yi oxygène bi day génn ku ko nooy da ngay am par rapport ak bëccëg te ñoom guddi fii la ñu ñëw fees fi dell waaw comme li ma wax léegi rek nañ ci ja nañu si état bi jàppale ministre bi nañu si jàppale jële fi usine bi ñun lu ñu dal bu dalee suñuy doom est que dinañ am sët